النبي سهزا سلاما ورسلوك سهزا ملاما فرخان فرق بيني أبدا قبل وبين كل من لم يحفظا man ñu ko waxee rek ñu ñaan sëñ Mountakha yàgg bi lool te wér foo ñaan sëñ Bassirou Anta Niang dama dem yàgg bi te wér foo ñaan sëñ Mbacké Abdourahmane mii ñu gën ko xam ne sëñ Mbacké Dabassar dina yàgg lool ci wér taxawaayam ci diine ji lislaam bi rafetlu nañ ko lool suñu mbàkk nag ni ma koy rek moom dara ñu ko la may lislaam dong liggéey Sëñ Tuubaa kon nag ñu ngi ñaan bu baax a baax aw fanam gën a nga ne nooy dina def mooy ne ko waajib nan du nan rek muy Sëñ Abdourahmane ñu daan def màggal gi fii lañ daan dajee ñëpp ci màggal di bàyyi kon Sëñ Moodu Mbàkke dem man la ko booba nee na ci la si Abdourahmane kon nag ñu ngi wax rek ñu ngi jàng xasaayid ak alquran ak salaatu ala nabi ak berne ñu daan lépp rek maanaam màggal bi nag day màggal la waaw bis la sëriñ bi Tuuba gisee woon nag rakkam ñu ñu teel ñu mu sëriñ Tuuba boobu nag ci la bu mu déggee dem ci la fekkal njaboot bi bis bi nga xam ne ci la njëkk a daje mooy bisu tey bi kon nag bis bi la boo xam ne ñëpp ñëpp ko war a màgg mboolem kilifa taale bi da yaakaar seen tuwaar ko yaakaar moom mooy war ko màgg kon daal loolu moo war a màgg ñu ngi leen ñu leen sant baax ñu ngi xam yéen waaye yéen média yi ndax wax dëgg yàlla euh, su ko ni ñëpp yéegi yàlla ak yéen na seen taxawaay rafet na tool ñu leen sant leen gërëm ñaan yàlla gën a taxawal seen rajo ba lépp loo bëgg a defal leen ko ndax ñoo ko bañ a wax seen yéen mag yi إليه سنوا الأنبياء والرسل يوما تقدم الشعاع ويفسدوا حوى الصفات التي أنا جد سواه في اليوم الذي ودون جد محمد صلى عليه وأفضل ما خلقوا موت mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar bu baax a baax di leen delloo am nuyoo di leen siyaar bu baax di dogal ngànt it ci kàddu yi ñuy yëkkati xëy ndigal te loo xam ne liñ naan al isnu yaqtaul waaye lott nañ ci loolu ñu ngi ciy dogal ngànt bu baax a baax ngir ñëw ci xëy na li li waral bis bi ku ne xam na ne sëriñ bi <clears throat> bi mu wootee ginnaaw suñu Mamour Anta Sali dafa woote ngir def tajdiit yeesal sunna su yonent bi sallallahu alayhi wa ci ni mu ko waxee ci bërëb yu wuute wuute lil Mustafa nawaytu maa yujaddidu sunnatahu lgarra wa inni ahmadu mhm. waxaat ci beneen bërëb ne wa sunnatahu inchaa rabbi ubayinu mhm. waxaat fa ne ne woo bi yajaddidi sabil bi la aidan aw alami mhm. kon day mel ne li nekkoon jubluwaayam mooy yeesal sunna su yonent bi sallallahu alayhi tamit saxa saxalaat alsaxaafa al islaamiya wal xadaara al islaamiya ci jamono boo xam ne it tubaab yi ñoom ñi ngi ñëw ngir saxal alsaxaafa al garbiya wal xadaara al garbiya kon nga gis ne kon loo am na diggante sëriñ bi ak tubaab yi loolu moo waral ci atum 1895 tubaab yi woolu ko ndar jàpp ko yóbbu ko Gabon mhm. donte moom leeral na ne loolu du ak jàppewu ko liggéeyal yàlla liggéey boobu nag bi muy dem Gabon di liggéeyal yàlla ci la jëloon mbooleem njaboot gi mhm. ak responsabilité yi nekkoon ci kawam yëpp teg ko ci loxol rakkam yu tedd ja muy Seydi Ibrahim mhm. muy borom Daarul Muhti mu jànkonte ci ay coono yu bëree bari nag ndax daanaka fu toog rek tubaab yi jëli ko fa jàllale jàllale ko feneen mu nekk ci noonu di muñ fexe ba du bëggul mukk sëriñ bi ñëw mu koy miim dara ci ci lam ko dénkoon moo tax mu dej mu def ca lu mu man ak lu mënut ba sàmm liggéey ba bi sëriñ bi ñëwee seeral na ko ne ko yaakaaruma ne ma bu fekkoon ne yow yaa dem man ma toog dinaa ko mën a sàmm nii ma ko sàmmee nii mhm. loolu soo xam ne sëriñ bee ko seeral dëgg la ci atum 1902 nag bi sëriñ bi ñëwee ba egsi Ndar woolu ko mu ñëw ba muy moom moo tombeeg bis bii nii mooy yow mu nisu Chaabaan gii kon day mel ne sababu màggal gi mooy ginnaaw bi sëriñ bi ñëwee bim njëkk gisantewaat ak borom daaru